yéen ko yéen ko. kii la jëriñ. waaw man jaaree si eh waaw saa yow saa yow saa ko yow ko yow ma adda to ci kaw waaw jël leen jël leen su ngeen paree wala ngeen man dëgg li baaxul moo nangu waaw waaw na nga def bu dee waaw jël leen li nangu lee nangu lii nangu lii bu jóg bool bi trop bool bi jubandi

waaw dañuy teg bagage yi comme jeexul trop na pour dem. một, con duduk. Mana yang bilang bayar bulan ini? Bayar bulan ini. Aha. Eh, mana? Ambil deh.

Sen de bu sen

రెండు ఇంకోటారా వండి Savunacı. Bunlar benim motor. beneen morceau baaxoon de beneen morceau baaxoon de boobu moom xam na kii beneen bu nii nañ dem kër ga yónnee beneen morceau. beneen baaxul. nee mau. ko doo parce que base boobu moom amul kenn ku yàlla fii moom. amul ponk amul fu toll mu fi mën a yàlla ba ba ba ba sëgg ci base boobu. ñaari ñoom da nga yem rek xam nga léegi waaw lu wér la yow. Thank you. 아니면 뭘 네. 연관료가 되고 ah kon ñëw na.

morsi man ci ndigal laa ci de waaw maa ngi ne. man ndigal laa ci ma ne gars yi fa muy tënk waaye. waaw. Voilà. sans arrêt loolu man dafa péré ma daaw di jiitu rek bu dee yàlla moo baax. moo ne gone góor day indi gone góor gone góor day indi gone góor day indi ñaari kii yu suuf ñett ñett la kay bala bala ngaa ñàkk ci kaw la jëm ci kaw te côté bii day tax ñu soxla bu baax loolu it est-ce que man maa ngi jël.